bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidina moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi gannaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di yeesal sunu njëbbal ci cheikhul xadim euh, daje nañu tey jii fii ci jumaa ji euh, diggante euh, district sanitaire bu Touba ak brigade spéciale bu service d'hygiène bu Touba fii ci jumaay Touba ji ànd ko ak daairat Muxaddamatul Xidma li doonoon solos ndaje mi nag mooy waajtaayu màggalu Touba gi nga xam ne ñi moom la jëm si incha allahu taala ak euh, matuwaay yi nga xam ne war nañu koo jël jiitu màggal gi waxtaanee nañ fa nag waxtaan mu am solo woo xam ne wu tënku la woo xam ne li fi nekkoon ci ay xalaat lépp ak rëq-rëq yi amoon ci liggéeyu daaw bi yëpp waxtaane nañ ko ba tënk lépp ba jàpp nañ ne ni ñu xalaatee liggéey bi rek jii suñ ko defee liggéey bi dana nekk bu mucc ayib donte at yi weesu sax muccoon na ayib waaye la ca amoon ci ay rëq-rëq su néew fas nañu yéene jubbanti ci liggéey bi nga xam ne mooy di ñëw euh, ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo seq ñaari euh, barab yooyu ma wax muy waa service d'hygiène nga xam ne ñoom ñooy jiitu wax nañu seen pas-pas ak seen yéene ji nga xam ne moom lañ fas yéenee liggéeyee ànd ko ak daayirat bu xadamatul xidma ci wàccaayu màggal gi muy ci jumaa ji muy ci bërëb yi muy ci baqeen naka noonu itam euh, docteur Ndeye Maguette Diop di médecin chef district moom itam euh, wax na moom itam ni nga xam ne noonu la bëgg a liggéeyee ci infirmerie bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji waaye ak ci mi itam waaye ak barab yi nga xam ne itam fi la ñuy waaj way dawlu yi muy xosul ma gi ak Euh, baaxee fenn fu nekk la nga xam ne moom la fa war a taxawee ci wàllu wér gu kon daal mel na ne waxtaan bi tënk nañ ko ci point yu am solo yoo xam ne euh, su yàlla dogalee ñu joxe ko noonu rek dana nekk liggéey bu mucc ay boo xam ne liñ ciy séentu te de ko ci yaakaar ci njëriñ lépp mën na cee am xëy na nag ci tënk dañuy jox rek soxna docteur ne Maguette mu tënk yan nat ci yi nga xam ne waxtaane nañ ko ndax waxtaane xaw naa yàgg yaakaar naa du caaginu lépp it mooy jar di ko wax waaye yi ëpp solo ci point yi nga xam ne rek ñu ngi lay moom lañ ci tënk euh, ak li nga xam ne moom lañ ci jublu euh, mu wax ci mu euh, wax ko su ko defee it yaakaar naa ci kanam war nañu amaat yeneen daje yoo xam ne mën naa am mën naa am mu gën a yaatu ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi law ba ci pharmaciens yi law ba ci médecin privé yi law ba ci itam ñi nga xam ne dañuy def ay poste avancé ci li war jumaa ji ñooñu ñëpp itam soxna jàpp na ñu ànd ak ñoom daje waxtaan ak ñoom lu jëm ci liggéey bi na ci barab bi nga xam ne mooy penc mi ak jumaa ji waaye alaa kulli xaal daal ñu bàyyi xel ne euh, waajta waajal nañ ko waajtaay wé ca war am nañu yéen itam doxe ko ci nam gën a rafete ci lépp nag ñu laal ko ci ak taalibe lal ko itam ci pas-pas bu sell waaye lal ko itam nag ci jëflante bu rafet boo xam ne moom la ñu war a jëflante ak nit ñi ni nga xam ne noonu lañ ko baaxoo defee at mépp euh, dama yeesal rek ak cant ni ko sëriñ Abdou Lahad ma lay waxee woon léegi jëme ko ci euh, docteur Ndeye Maguette di xamal bokki taalibe yëpp ni taxawaay bu rafet bi mu am ci jumaa ji adduna sépp seere nañ ko diirub bi nga xam ne ñëw na fi ba léegi lépp loo xam ne yitte la ju jëm ci jumaa ji taxaw na ci taxawaay bu rafet Euh, doy na sëkk rek ñu wax ne Covid bi weesu seere na ko seere seere boo xam ne ci digganteem ak juma ji rafetaay mënu ko weesu ba yaakaar naa loolu du ñun rek ñun ñi nga xam ne xëy na ñoo ànd ak moom di liggéey ñoo ko seere waaye kilifa yi nga ko wàllu wér-gu-yaram ci jamono jooju ñoom ñëpp ko fi mas a ñëw gis nga ne fii fekk nga fi ay taxawaay yoo xam ne bu ko fépp defoon tawat ji du law te loolu lépp nag wax dëgg yàlla ci taxawaayam moom mii la. ci xam-xamam boo xam ne nangu na ko seq ak nit ñi waaye nangoo seq ak nit ñi waxtaan nangoo seq ak nit ñi tam li mu am ci xam-xam mu di leen ko jox di leen ko laabiire te ànd ak ñoom ci nuñ ko mën a jëmmale kon soxna si ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan suñu borom mu barkeel sa liggéey waaye barkeel liggéey tam mboolem ñi nga xam ne ñoom nga seqal liggéey bi yëpp di ay médecin di ay infirmier ak ñeneen képp kuy war yëngu rek ci wàllu santé di sant itam ci sawtur ak turu mu xaddamatul xidma Euh, pharmaciens yi nga xam ne ñoo nekk ci région de Diourbel rawatina yi nekk département Mbacké rawatina yi nekk biir Touba nag euh, te docteur Thioubane euh, coordonné leen ñooñu seen liggéey rafet na lool lool lool lool ci barab bii ndax ni médecins yi def ajjuma ju ne ñeebal fi équipe événement bu mag bu ne ñeebal fi équipe ñoom noonu la ñuy def ajjuma ju ne ñeebal fi pharmacien boo xam ne mooy trier garab yi bu ñu mënee ordonnance mooy xool ni ñu ko war a joxe ci biir barab bi euh, di xoole stock bi fi nekk itam di ko saytu ni mu waree kon daal ñi nga xam ne ñooy ñëngu ci wàllu santé moom ci barab bi ñu ngi leen di delloo njukkal bu baax di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal suñu borom defal leen ndam nag lu kawe ci barke Cheikhul Khadim màggal gii ñuy dugg itam ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim defe ko ci gën jaarafeti anam ba noppi ci ci alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim kon ñu tàmbali rek eh, di di santaat yàlla bu baax ci tawfeex gi ñu am ñëw tey ci bërëbu tedd bi eh, ngir fekk si fi waa Muxaddamatul Xidma eh, ak commission santé bi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéey bi ci wàccaayu màggal gi waaye it infirmerie bii nekk ci biir euh, barab bi ak li wër barab bi ànd kaak docteur yi ànd kaak waa service d'hygiène euh, di santaat yàlla bu baax a baax euh, ñu jëm ci màggal gi war a fexe ba nit yi ku wax dajaloo xam ne dafa ànd ak ay jafe-jafe ci wàllu wérgu yaram ñu mën a waxtaan teel xam nu ñuy dimbalee nit yi ba ñu fegu euh, fagaru ba xat-xat yooyu sunu borom musal leen ci waaye it bu ñu demee ba yàlla dogalit loolu am ñu xam ñamu dal nuñ leen di jëlee en charge am na ci ñoo xam ne surplace lañ leen di fajee euh, docteur yeeg garab yeeg la ca war yëpp ñu waajal ko am ñoo xam ne faw ñu jàllal leen ñu mën a amit ay ambulance ak lépp lu ko war a mën a taxaw di wax ne daal euh, matukaay yi nañ ko daan jëlee euh, daañu def lu ko raw ndax xam ne ren ajuma lay tombeel kon lépp luñ ci doon def benn daañu ko gën a yokk euh, waaye it ni ko sëñ Abdoulaat waxee li ñu defoon daaw ñu seet lu ci gënoon ñu ñoŋal ko lu ci doon rëx ñu fexe ba saafara ko te gën ko teg si yoon ba nga xam ne daal euh, incha allah bu ñu génnee ci màggal gi daañu xam ne tànku kanamu sëriñ bi euh, feeñ na ci wàllu wér-gu-yaram di ñaan daal liñ ci jublu yëpp nag ci wàllu euh, liñ ci war a def yëpp ci wàllu ay daje ay waxtaan suñu borom dimbali ñu kàttanal nu ba nu mën ko li ñu yéene ci dimbali nit ñi ñi fi dëkk ndax booy wax wàllu wér-gu-yaram Touba district sanitaire moo yor wàllu wér-gu-yaram bi waaye xam nañ ne nag euh, barab bi ñu nekk ni tey euh, fi la euh, kon taxawaay war a gën a ëppee ndax fi la nit ñi di gën a daje màggal ak baru bërëb yi kër yu gàtt yi tamit xam nañ ne foofu ni fi nit ñi di daje kon ñu daje woon vraiment pour waxtaane wàccaay yi ñuy jël ak matuwaay yi ñu war a jël yëpp pour barab yooyu lépp luñ ci war a def ci fegu ci fagaru ak ci faj ñu taxaw ko taxawaay yu mucc ayib te ñaan sëriñ bi mottali suñu yéene ba daal lépp ñu am ci ngërëmal sëriñ Tuubaa di santaat vraiment waa daayira bi euh, di tàmbali di sant déjà li may wax waa ndax am na liggéey buñu ànd ak ñoom ci at mi yëpp mooy lépp luy xew ci jumaa ji ci julli àjjuma ak ci ay événement ñoo koy ànd ko ànd ànd bu rafet ñu dalal ñu si yaatal ñu ci dimbali ñu si tey nag màggal gi la ñuy wax commission santé ñoo ko yor waaye boole ñu si ñu ànd kaak ñoom àndin wu rafet ñu leen si santaat bu baax di leen si euh, jaajëfalaat daal tey wax ne euh, engagé wu nañ pour nañ ko daan defee saa su nekk ñu defee ko lu ni raw ñaan nag sëriñ bi dooleel nu euh, kàttanal nu mottali ko ba dara ba lépp jub te mu nangul nu ko ci barki sëriñ baax